vocal muy doxit dafay jeex ko <laughs> nga dëgg de <laughs> yooyu yëpp daal ñu ngi ci xaar kii alal ji nekk ci réew mi buñ ko exploité fexe ba jant bii fi nekk ñu exploité ko fexe ba li nga xam ne mooy wàllu salaire salaire salaire yii di indi courant bi di ñu bañ a dem ci di ko import dem di ko jëndi mais nan fexe ba nit ñi mën koo defar fii ñu koy defar di gañe mais kii bu yàqu salaire bu yàqu nga dem wuti ko ci bitim réew ñu ciy gañe yow doo ci gañe lu du sab jant ñoo lay liggéeyal ñoo lay installeel loolu dafa war a xew pétrole bii di ñëw ñu fexe ba exploité ko bu baax li nga xam ne moo di euh, wàllu sante ci faju foofu la dugg ci xaalis kenn kenn xamul nu mu toll lay dugg ci xaalis te ba léegi sante ñi ngi koy jooy boo demee ci hôpital yi da ngay gis malade ñi yor malade yi ak malade yi tëdd ci suuf du am fuñ leen ak kii sante boobu tamit ña koy liggéey ñu kii leen ndax ñoom ñi ñuy ñàkk mm, mm, respect ñi nga xam ne ñoo wéradi ak ñoo feebar dafa jéggi dayoo ba nga xam ne ëpp na dool ëpp na ñàkk leen teggin ñoom ñooñu tamit ku ci nekk yaa ngi yoraat sa benn euh, kii boo xam ne cabine boo xamante ni sa kër nga ko wàññi di fa jox nit ñi ay rendez-vous au lieu fi ñu la jël ci public bi jël la fa ngay liggéey doo ko respecté daanaka rendez boo am yaa ngi koy programme sa kër wala sa sëb kii yooyu yépp tamit ñu wax ji ndax mënu yore ñaari fonction ñu lay fay fii nga yoraat beneen sa kër boo xamante ni boobu nga gën a respecté bii fonction bii la public bi jox loolu yooyu yëpp nañ ko fexe ba mu jóge fi wàllu transport bi ñu fexe ba respecté nit ñi wutal leen oto yu baax yoo xamante nii mooy daw ci tëli ñu defaraat tëli yi jërul sax ñuy kii tëli yi ci war a defaraat pour ñuy daw ay long voyage tëli yu bari la yoo xam ne dafa yàqu depuis sa année yooyu yëpp daal ay kii la yoo xamante ni ñi ngi ci xaar euh, président Diomaye ñu koy ñaanal suba yàlla doon njiglaayam moo gouvernement moo Ousmane Sonko man damay wax sax ku ñaanal Ousmane Sonko rek ñaanal nga jumaay ndax yan bépp ci ci bopp Ousmane Sonko la yanu kon nan ñaanal Ousmane Sonko mu réussir nan ko ñaanal li mu yéene woon ak li taxoon muy xeex ba yàlla jël tey nguur teg ko ci loxoom moom bu yàlla jëlee nguur teg ko ci loxoom gàdduwu ko da ko teg ci loxoom bokk ko askan wépp bokk askan wi mënta paase loo waroon a yanu nga jël diw sàngam ne ko jëlal yanu ko man maa jari maa ma maa maa sonn coono bi maa sonn métti bi maa ko dund waaye ànd ak loolu lépp yéen jël leen ngeen doxal na dox rek man na dox Ousmane Sonko moom liy itteem ak liy xalaatam mooy na dox na dox rek moom mooy kiyam waaye amatul beneen bëgg-bëgg loolu nag bu ko liggéeyee ba mu toll fii dañ ko cee war a jàppale jàppale bu leer boo xamante ni jàppale bu leer a leer lay doon loolu nag yéen it jàppale leen nu bu baax a baax a baax mooy li ngeen ñuy jàppale mooy fexe ba askan wi ndóol gi ñuy dund ak mettit wi ñuy dund xale yi di dem ci géej gi te li leen waral géej gi ñu ciy dem du dara dara taxul ñuy dem ci géej gi lu dul mooy eh, kii bi doo nga tax ñuy dem ci ndóol gu metti gi ak ñàkk gu metti gi nga xam ne am na fii ci réew mi loola doo nga tax xale yi di xuus ci géej gi ñu ci bari faatu ci ñi seeni jëkkër ténji leen xam nga ne da xool moos ci liñ lay wax nela am na ci ñoo xamante ni nee nañ ci biir gaal gi ci leen amee doom ci ay jigéen ñoo xamante ni euh, euh, dañ doon dañuy jóge fii ngir sip sone seenam réew ngir bandoone seenam réew mu metti dund gu metti gi nga xam ne daanaka boo xoolee deux mille vingt et ba ba heure bi état bi fi nekk moom liggéeyul woon ci xeex ci xeex Ousmane Sonko doole jum amoon mu sëf ko Ousmane songo ak xeex ko parti bi nga xam ne mooy parti Pastef te yàlla faru leen moo tax ah, euh, Sénégal daanaka gëj nanoo liggéey gëj nanoo liggéey ak mbas mi fi awoon nga xam ne mbas la moo xamante ni mu metti la Sénégal yi dund ci dund yu metti toog seen kër amuñu lu lekk amuñu lu naan Aliou Nguy Ndiaye mi nekk ministre intérieur di dóor di tëj daanaka lu nekk mu def ko surtout waa Touba gi yooyu yëpp xaalis yi fi jëloon ne dañ koy partager ak sénégalais yi genn wàll gi ñu lekk ko ceeb bi nga xam ne mën Mansour Faye mii bokkoon na ci ñu yooyu yëpp nan nu laajal sunu xaalis boobu ak sunu askan woo ñoom lekkunu ko mënuñu koo lekk diggante bi mënuñu koo lekk xaalis yi dañ ko denc yooyu nañ ko génne lii nag li tax ñu ko wax Ousmane Sonko moo nu wax ne seen xaalis yi diw sàngam sàcc na nangam diw sàngam jël na nangam diw sàngam tey nag yàlla bu demee ba jox ko nguur yooyu mu doon wax ne jël nañ ko te mu amut woon moyen pour indi ko tey am na moyen pour man koo indi nanu jëlal alal jooju xale yi am fu ñu liggéeyee ñii jàng mën a jàng ñiy faju mën a faju tanu nu respecté jàngalekat yi jàngalekat yi dañ leen a war a respecté fexe ba jox leen ay moyens yu baax ndax ñu mën a jàngal suñu doom yi xam ngeen ne li xew barki démb rek euh, ci bun jonn bun jonn muy euh, Abdoulaye jonn xam ngeen ne fin élection yi dafa feebar ba danoo wax ne dañ koo jël fi yóbbu ko bitim réew kooku tey mooy wane ne réew mi nekkul ci état koo xamante yaa ngi xëccoo am réew bëgg doon président tey doctor hôpital bu la faj sax amul Sénégal bu la mën a toog ñu faj la fi amul ñu lay jël di la yóbbu loolu dafa xaw a ruslu sax loolu njàngat mu rëy leen ci war koo xam yaa ngi xëccoo sam réew ne réew mi da nga bëgg mu sensé nga bëgg mu nekk beneen réew réew boo xamante ni maanaam yow boo fa feebaree sax mënoo faju ndax amoo amoo foo fajoo hôpital bu baax bu la mënta faj mun ñaata nit ñi nga xam ne mënunoo déplacé wu mënunoo am moyen pour fajoo bitim réew mënunoo am moyen pour dem bitim réew léegi ku ci feebar yow lan mooy sa problème mooy tëdd dee mooy tëdd dee docteur bi lay faj bu la gënee feebar looy def yow malaat bi mooy da ngay toog rek dee léegi nag yu mel noonu lanu wax na yooyu nan ci dimbali bu baax a baax a baax a baax bu ko defee nag euh, wala fi dañuy wax ne kuy wax ci lu ñëpp xam wax ci tuuti doy na moo tax dañuy daal di ubbiwaat téléphone bi ànd ak yéen 77 145 40 40 di nuyu waa bitim réew nag bu baax a baax a baax. di nuyu maam Thierno Gambu ñu ngi koy nuyu di nuyu sama jarbaat nga xam ne moo di soxna Fatou Bintu Rosol Bintu ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax ñoom ña nga France ñu ngi leen di siyaare bu baax di nuyu waa Espagne waa Italie waa Amérique Atlante euh, bàyyi wunu fenn daal ñun ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di wax ne nag tey dañoo bëgg alal ji nga xam ne moo nekk ci réew mi te xaj ci réew mi te nu mën koo jariñoo ñii nga xam ne ñooy toogaat te war a toog toogin wu bees ñu ngi leen di ñaan ñu dimbali ci sunu alal ji ñu delloo si nun ko soxla nan ko alal ji rawagut ñoom rawaleegun ko mënuñu ko rawale sax mënuñu ko lekk mënuñu ko rawale xam ngeen ne fii ngeen dégg Farba Ngom di wax ne ci ci kiyam ci ci ci ci ci ci ci këram ab savooram xawma xaalis bu bari bun fa denc boo xam ne kenn xamul nu mu toll li mu yor ci alal kenn xamul nu mu toll te nee na barki démb boo njaay daf fi doon dund nekkoon fi sax koo xamante ni yow ci mbër yi nga nekkoon yoral leen seeni i summikaay tey nga doon bokk ci milliardaire sénégalais yi yooyu nag lan soxla tey eh, sunu étape Sénégal bu ndaw bi nga xam ne eh, mu ngi ci loxol Bassirou Diomaye ak Ousmane songo ñu fexe ba loolu ñu dindil nu ko ñu fexe ba ñoom ñu indilaat nu alal jooju xale yi nga xam ne doon tëdd sëmër mënunoo liggéey jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi guddee ak bëccëg tey léegi kuy dem marché coono bu mangam sunu géej yi nga xam ne ñi ko yore jaay nañ ko port bee fi ñu toll kin ko joxoon ak yooyu yépp nan toppatoo xaalis yooyu fexe ba xale yi jël liggéey ndax ñoom ñi ñu doon jël ñëpp seeni mbokk lañu jël seeni kii foo ci dem daanaka ko boo limee ni kii euh, nu mu tudd da naa moo ki ñoo bokk ndey ak baay kee bokk kee doomu nijaayam la kee doomu bajjanam la seeni famille dong lañ jël dugal ko ci kii bi Ousmane Sonko nag nii mu def jël lu toll ni am réew nga jox ko xam ne bokku leen day bokku leen bàyyi bokku leen sax ci askan nga jox ko ko loolu day wane bëgg am réew loolu loon xam ci réew mais toog ci état yore ko jël mbooleen koo xamante ni sa famille la waxuma la sa famille sa waaye koo bokkal cosaan ci wàllu diggante eh, lële la ak lii la nga nga nga jël ñooña favoriser leen ñeneen ñi nga xam ne bokku leen ci xeet boobu nga bàyyi leen fii ñuy suivre ba gis ngeen Casamance lim dund dund lu metti la dund gu mett ay huit mois yoo xamante ni dem dikk ba dawul bata bu dawul ak ñooñu ñoom ñooñu gis ngeen sax ku ci sant sant sàngam sax coono yu mag nga doon daj ci jamono yi da nga doon dem ba da ngay rus sax ne man nangam laa sant ndax boo ko santee yaa ngi tàmbalee am fitna boo nee ci parti Pastef laa bokk daal di am fitna yooyu nag lanu bëgg mu set fi wécc ñu xam ne Sénégal benn senegal la benn bopp la ñëpp a bokk. mënunoo xar réew mi ñaar ñoom li ñu doon def di wax naa réew mi favoriser ay géwal ñu naa réew mi doon ko jox kuy dàmp lu guddee kuy dàmp ay xaadim sàmbak ñooñu yooyu yëpp dañ ko fi jële dañ ko fiy jële ay géwal di la topp ñu naa waa pale ba euh, gis ngeen kii moomu doon wax naa Ousmane Sonko dafa amul yooyu yëpp dañ ko fiy jële yooyu yëpp dañ ko fiy jële li tax ñu ko fiy jële mooy dañoo bëgg ñëpp di dund dund gu ligsi waaw du du du ma sàmba mooy dund dundi gulu si du dund déedéet loolu du kii kon mbokk yi ñu ngi xaar ci téléphone bi 77 145 40 40 bu ko defee euh, képp koo xamante ni bëgg ngaa dugg nga indi sax xalaat ci euh, li nga xam ne moo di euh, seen émission bi ñuy wax jomaay mooy songo songo mooy jomaay jomaay mooy songo mambay nag moom warul génn génn laaw buuse buuse buuse benn territoire bi sa waru koo génn moom territoire bi waru ko li mu sabab fii ci xaalis li mu fi sabab ci lu ñuy wax ne xaalis la jëlale naa sabab googu ci xaalis waaye li ñu sabab ci bakkan yu fi rot yoo xamante ni ci lu dul dara yooyu yëpp lu ñu war la yoo xamante ni euh, kon ay ca 77 145 44 beneen bi ci des président Diomaye it bu mu wut comme ni président Macky Sall defar wut ay journaliste yoo xamante nii danoo dox sa diggante askan wi di la lëntalal askan wi di la tagg di la jay yooyu na ko moytu bum ko jéem a wut ci kenn ñi ko doon jàppale di journaliste yi tamit euh, na seet mooye ban la leen mën a jàppale waaye bum leen jàppale ci ay dee leen ma tagg dee leen ma def nangam déedéet bu mu leen jàppale ñu jël mbokk mi salaamaaleykum salaamaaleykum sëñ bi na defaay sant yàlla ba alhamdulilah. noo tudd ak fay wootee. Uh, Souleymane Cissé maa ngi woote Allemagne. yaa ngi woote ana waa Allemagne ñëpp. ñu ngi ci jàmm baax alhamdulilah. Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay seen émission. <laughs> Sonko mooy waaw macha allah Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay. waaw dañoo dégg léegi émission bi ñu ne xaar ñu dugg. la dëgg la allah muy lu. am solo comme li nga wax si ku mel ne Mame Mbaye Niang genre yooyu moom wax dëgg fa yàlla. wax mhm. dëgg fa yàlla waruñoo génn. ndax dafa am lu fi jaar lu bari loo xamante ne nii luñ war a lijjanti la. dëgg la eh, ndax man li ma gis ci réew mi mooy dafa am loo xamante ne buñ ko buñ nee fayantoo lu du fayantoo. déedéet déedéet bu doonte ne. Mhm. jàppoon tëj ci kaso bi rek. Mhm. xale yi ñu am ñoo xam ne dañoo damm ñii gaañu ñii làggi sax amul problème ba tey sa jàpp naa ne doy na waar waaye amul. des na tuuti. waaw mais dafa am ay bakkan yu ci yu bari sax yu bari. dafa am ay bakkan yu ci mhm. waaw te loolu kenn waru koo bàyyi muy jàll noonu wax dëgg fa yàlla kenn waru koo bàyyi muy jàll. dafa am loo xam ne buñ ko bay mu jàll. Mhm. dana ñemeloo sax ñi fi nar a toog. parce que boobaa mhm. mat sëkk lay doon ci ñi nga xamante ni ñun ñoo parce que lii dañ koo xeex. ba jusqu'à dernier centime dañ ko ànd ak Ousmane Sonko xeex ko ak Bassirou Diomaye. loolu ñu xeex nag pour bëgg am jàmm. nañu teg mbir yi ci yoon ndax nit ñi mën am jàmm bu ñu ko deful. Hmm. yëf yi day continuer di méttiwaat rek. dëgg la wallaay ku ñu war a teg ci yoon nañ la teg ci yoon. Hmm, hmm, ndax nit ñi mën a mën a dund si jàmm am réew bu fa jàmm amul dara du fa am. yàlla moo ñu ëpp yërmande téeméeri junni te dafa wax ne ku ray ray leen ko. ku sàcc dagg leen loxoom. ku leen xusi xusi leen ko. léegi lu tax ñun ñuy seetaan ñuy toroxal doomu aadama yi ci réew mi nit ñi xeex ba ñëw taxaw. ñu bëgg a bàyyi loolu mu sedd jàpp ma ne danañ ko bàyyi xalaatu ma sax danañ ko bàyyi yaakaaruma loolu waaye nag dañuy hmm. araftu wa zakir fa inna zikraa tanfa'ul mu'minin yaakaar naa ne loolu lu leer dañ leen di fàttali pour ñu ñëwee xam li leen di xaar lan la hmm, hmm. waaw dëgg la dëgg dëgg la waaw dëgg la jërëjëf ñaan ci ñoom nañ teg yoon wi ci dëgg bi topp leen ci incha allah rabbi bi ñu bañ topp leen ci lillahi wa rasuli buñ ñu wor ñu jaar ci loolu buñ ko defee doole rek la ñuy am kenn du mën ci ñoom dara déedéet déedéet déedéet bu nit ñi xamee ne ah. jub ak jubal rek ak jubbanti loolu mooy seen kii ñëpp a ci ñëpp a ciy tënk loo wéet wéet di nga xam ne d'accord waaw di nga xam ne ëllëg boo dëngalee dañ lay teg ci yoon dañ lay teg si yoon. Ah, waaw ndax tey boo xoolee tey ay am na ñoo xamante ni tur yi ñor ni mu seetlee ñu ne ci réew mi. Mhm. wax lu ñaaw ci Ousmane Sonko. Ah, ay jigéen fii ak cinquante ans waru fee jur ku mel ni loolu dafa ñaaw. kooku dafa ñaaw kooku moom war nañ koo yar yar mag mu yaree di ko moom dañ laa war a yar. moom ci penc sax lan la war a yare ci penc lan la war a yare waruñu laa yare ci ruq sax. ci ruq waaw dañ ko ah. war yar. ak ñen mel ni ñoom. parce que lii wallahi diggante deux mille vingt et un ak léegi li ñu dundaloo askan bi. dafa metti dafa metti dafa metti. metti na metti goo xam ne nii. loolu waruñ ko bàyyi mukk muy jàll. bu jàllee rek rek bruy la. dëgg la dëgg la. ndax fan yi lu toll ñaari fan ngay ngay ngay ngay fal fii. di rocc fii di dugal fii di def kenn mënul xam lii lan la. ci ay trois jours ay deux jours yow ngay def fal yow mi nii fal ak yow miy fale yéen ñaar ñëpp a yam loolu ger la rek ci ba kaadaru ger la dugg rek. ger la ger la damay toog sama xol bi di wow koŋ du ma xam sax ma ne kii. Ah. ci ngay xamee ni kii ku bañ réew mi la. Ah, ci li nga xamee ni kii bëggul dara. bëgg ko kay bëgg ko kay jërëjëf <laughs>